vous avez un parti peut être dans un combat d'opposition avec le pouvoir mais dama ne opposition le combat politique est accepté en démocratie man dama jàpp l'essence le moteur de la démocratie c'est la confrontation mm -hmm. c'est-à-dire que c'est la confrontation mais la confrontation elle doit être bâtie autour des idées la confrontation c'est une confrontation programmatique c'est-à-dire que c'est pas parce que jàpp nañu leader bi mu dem prison que forcément il faut être en marge de la loi mener le combat. ce qu'ils disent mooy ils se sont dañoo jàng ci li xewoon dans le passé. Euh, non avec des leaders yoo xam ne ils ont connu le même cas. amul lu xew dans le passé. un combat politique il se il ne se met il se mène à l'intérieur de règles d'un cadre établi. ñu bàyyi le peuple décider élection mais peuple élection lay décider. oui justement mais nekkuñu taawu élection. oui mais il y a un processus. nekkuñu tey jii nii boo seetloo lépp day wane que ne seen candidat narul bokk. parce que y' koy frappé. dara wane wu ko waaw lu ko indi. lu indi ñaari condamnation yi. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. lan moo indi ñaari condamnation yi. il faut se dire les vérités. mais dans l' affaire Adji Sarr dama ne réew mi déparé viol jeexalee. corruption de la jeunesse dama ne loolu ñu bëri ba tey ils ont du mal à le comprendre non c'est très simple je dis bien que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude on ne compare pas des cas qui ne sont pas comparables tu me parles du cas Karim Wade le cas Karim Wade celui qui est à l'origine des poursuites c'est l'État du Sénégal mmh. à travers la CREI État du Sénégal ñoo initié ay poursuites contre Karim Wade d'accord tu peux dire que c'est l'État du Sénégal Khalifa Sall c'est l'État du Sénégal à travers à l'issue d'un rapport de l'inspection générale des de, de l'État moom moo porté plainte contre moo initié ay poursuites contre Khalifa Sall ça c'est des faits c'est établi ok mais dans le cas l'espèce dans le cas d'espèce aujourd'hui bi xew ci réew mi mais nit moo jóg yëkkati ay kàddu ci beneen citoyen citoyen boobu ni ko li nga teg sama kaw du dëgg du yoon te ay kàcc la diffamation la da nga ma tooñ dem tribunal tribunal ne ko yow wax nga ni yor nga rapport yaa yëkkati nii image yi ñëpp am nañ ko ne am nga rapport euh, kii dafa luubal mënul génnee rapport parce que rapport amul loolu musul am yaa dégg ñu condamné la mais kooku kan mooy responsable bi est-ce que c'est l'État condamnation yow yow yaa yow yaa yow yaa jiiñ nit lu amul. d'accord condamnation ñaareel bi. oui mais bi. condamnation d'accord. mais xañ nit. Euh, ambition présidentielle am. ci lu oyofee noonu. les gens ne le comprennent pas non, en fait. non non maanaam quelqu'un qui a des ambitions légitimes quelqu'un boo xam ne mën na soppi dara am na volonté ci loo xam ne danga nga koo amul ñu bëgg la ci balayer carrément est-ce que tamit loolu xel xel nangu na ko. xam nga lu xel nanguwul il faut que on assume la responsabilité c'est quoi la responsabilité. Mm-hmm. quand vous portez un projet de cette dimension quand vous suscitez. de l'espoir à ce niveau quand vous réclamez que yow am nga ambition yenn posture yi dafa am loo xam ne nii waru la boo ko defee tu es irresponsable d'accord tu n'es pas à la hauteur du projet et tu n'es pas à la hauteur des des enjeux et tu n'es pas à la hauteur de la confiance ñi nga xam ne nii ñoo topp sa gannaaw loolu c'est que il faut qu'on dise les choses de façon claire et nette gis nga bu la nit ñi yaakaaree nga am loo xam ne nii yow jàpp nga ni am nga doywaay boobu am na projet yow li ngay jaay sénégalais ay nit ba ñu topp la dafa am loo xam ni waru la dafa am loo xam ne da nga koy war a moytu war nga moytu wax lu dul dëgg war nga moytu teg sa moroom sa moromu citoyen loo xam ne nii du dëgg mm-hmm. am na comportement yoo xam ne nii waru la bu fekkee waruñu la fekk ci yenn yi waruñu la jàpp ci yenn yi loolu l'exercice de la responsabilité et du projet et de l'ambition que tu moo lay moo lay interdire loolu parce que bu dee ne da nga bëgg a nekk kilifa bëgg a nekk responsable bëgg a nekk leader tu dois incarner un leadership transformationnel et un leadership exemplaire dafa am loo xam ne nii waru la loolu mooy leadership non loolu loolu loolu mooy. ñaari exemple am nañ ko ci bi ci njëkk mooy il a voté sans carte d'identité ñaareel bi. mooy il a parlé du président Macky euh, en des propos yoo xam ne. xam nga fii on n'aborde pas les questions comme on doit les aborder. Mhm. moi quand j'ai une ambition présidentielle ay nit topp suma gannaaw yaakaar ma. ñooñu seen responsabilité poids la ci man tous les jours li may def li may wax lépp fu muy dugg fu mu dul dugg dama ko war a mesurer mhm. mais xale bu jigéen bu jóg foo xam ne nii yaa jóg taal sa oto guddi yaa ngi ci deuxième cas bi dem ñu ñu luñ la fa munti ji yow yaa ko def ana responsabilité état foofu ana responsabilité gouvernement foofu ana responsabilité euh, président foofu y a responsabilité maintenant que yoon jóg dal sa kaw tu nga foog ni mun nga ut paravent politique pour te soustraire à l'action de la justice ça c'est une autre chose mais le fond du problème mooy nit kuy wax dëgg rek man waxuma ambition c'est-à-dire que l'ambition yow lii lii tënk sa ambition wala tax sa ambition du dem loolu ci yow la jóge jógewul vraiment ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk en face loolu il faut ñu assumer ko après loolu bu ko assumer ba ñu d'accord ci loolu li ci des ñu xool euh, naka lañ koy